imaginer que bés dana ñëw dëkk bi avion du fi naaw aéroport mm. taw tey kenn mënul joge euh, donc euh, région ba région mm. donc euh, tey wax dëgg yàlla bon waxuma sax si marchandise ak leneen ak leneen leneen secteur boo dem rek mm. situation bu doy waar Charles waaw der mooy wax rek liggéey boo xamante ne war nañ ko def <laughs> navette bateau euh, c'est pas du tey quoi du doon tey mais mais vraiment quoi on a affaire à. non boobu ça psychosomatique. <laughs> plus que ça je le dis bien j'espère. est-ce qu'il y a pas un mot plus fort hypochondriaque. non est mais mais mais moi je l'étais plus jeune mais là vraiment à cet âge. docteur je pense que il fait de ça c'est anxiogène hein il est dans une anxiété très grave. mais c'est ce que je dis. bon ban garab lañ a jox boobu ça va pas du tout. fajee mais déglu bu ñu fajee corona ba pare faj leen xel yi. non il a des séquelles dañu tiit parce que nag xam nga Covid bi mun na la bañ a laal buuba parce que lu ma jàng tey mooy Covid bi mun na la bañ laal mais day altérer say fonctionnal say fonctionnalités te font faire des gestes. Ah, non non non mais tey jii Euh, professeur Bousso mu ngi toog ministre de la santé mi ngi toog yàlla sama jëmm ñu ndaw ji baa xamee ma toog ci benn plateau ay millions de nit di ma seetaan mm. su ma mënul wax wane mm. ah su ma mënul wax wane c'est pas pour moi que je le fais bon dafa ma sama rôle Charles c'est bon sur la circulation non je n'avais pas fini fais passer je mets mon masque merci beaucoup Bouba jënd ak jaay mi tàggatéem bi jënd ak jaay mi tàggatéem bi mm. c'est-à-dire que dem ak dikk marchandise non non non cest à moom laay wax ni li am solo ba am solo. Mm. mooy que il faut que nit ñëpp ñu préparer wu ci éventualité bu nekk. Mm. pour man loolu moo am solo. que nit ñi en dehors de état li muy def nit ñëpp ku nekk il faut mu intégrer que cette possibilité elle existe que li ma daan def fa ma daan dem nu ma daan jëndee mën na changer à cause de de ce qui. waaw luy la ma mais. quand xam nga marchandise nit moo ko yóbbu. waaw marchandise mënul jóge si place demal boppam fu mu neex. nit mooy jël marchandise pour yóbbu ko. Mhm. quand la personne elle-même a des contraintes pour se déplacer. il est évident que la marchandise ne peut pas passer. Oui. Pape Djibril c'est une cohérence c'est pas une théorie mathématique ah. mooy mooy principe élémentaire de réalité réalité bi aujourd'hui moom mais daf ñuy daf ñuy fàttali aussi ni décentralisation war nekk une réalité. décentralisation boo xamante ni su boobaa nit ñi dinañ gën a contrainte yi dina am mais du am ni mu du métti carrément parce que bu boobaa dina fekk nit ki fa mu nekk lépp lu mu soxla dina ko fa am. docteur les marchandises vous intéressent la moi je l'ai remplacé par produits médicament médicamenteux et ça nous. ça risque de nous poser problème si sa continue comme ça si l'épidémie continue comme ça. bon oh, euh, naa benn virgule bu ndaw rek. non xam nga xam nga ñun ay sénégalais lañu dañu màccoo. suñu àddina yëpp suñu jabar yi ñooy dem marché ñooy dem il est temps góor ñi ñuy ñoo dëgg la. nga xola jigéen ñi téye xale yi ci kër ga. góor ñi dem ca marché ba jënd pour indi pour protéger seen famille. loolu yëpp dañ ko war a man damay maay dem marché temps yi. il faut que ñu intégrer loolu. pour jàppale aussi suñu njaboot. on doit te pendre haut et court. bu dee bu dee soxna si dafa war a toog garde garde xale yi bul rus a dem marché pour protéger leen te boo demee nga sol masque. indi beneen gis-gis bi ay dóor la rek. ay dóor rek la kay. yow doo takk ñaareel. <laughs> kon beneen bi yeggul dafa des ci yoon bi Pierre Silva na jotul ci beneen bi man it nga wax euh, defe naa corona bi ñëpp la bokk jàpp ba de mémoire sax mënuma wax mënuma wax euh, troisième bi <laughs> ban la alors que maa ko liggéey Euh, troisième bi donc euh, ñu yamale ko fii. di leen euh, di rafetlu seen ñëw docteur vraiment xam nañ ni jot bariwul monsieur le ministre jot bëriwul mais ni ngeen ko wax exercice de transparence tax ngeen ñëw toog dans une émission. vraiment wax ak askan wi leeral leen ñu gën a taxaw ci guerre bi nga xam ni askanu Sénégal àddina bi yëpp jamono ji ci lañ nekk ndax coronavirus bi daal di fi daal di ñuy dëddoog jàmm Charles. un Sénégalais, un masque, et on aide le ministère et nous tous. jërë ngeen jëf.